Cheikh Bamba yaa ma yaa ma tax soxla doo faj aajo yaa ca gaaw watiis wa ca saxaar Cheikh Bamba yaa ma tax yaakaar yow soxla doo faj aajo yaa ca gën a gaaw watiis wa ca saxaar ku ñëw fi yow andi ndabam sellal yéeneem ngir bëgg nga duy nga daa di fab sa mbaax gi daal fab ndabam la duy kuy wax ci am xelam nga tontu ko xelam ma dal dal ku fi déyit nga dégg ko ku wax ajoom ja daal jël bii sëng rekk moo fi mat waay waayam du ko seetoon da koy taxawu kanam ak gannaaw di déglu lépp lu mu dagoon Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul bii sëng rekk mat waay waayam du ko seetaan da koy taxaw kanam a di déglu lépp lu mu dagaan jàppal jógal taxaw te woo ko ci turam mu ne jaas ahmadu bamba xaadimu rasuli rahmatinaas borom tuuba aw turam la borom màggal gi aw turam la moo man bëggee ku raw jàmmi murid yaa ngi nii Tuubaa ngiij bi kenn tëlut kenn moom rekk lanu moo ko fi mat bay tawat ak njàmbat sori mot bi tëlut kenn Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa matal te moo ko fi mat baluy tawat ak njàmbat sori Tuubaa ne mottu kon ne leen jaajëf Sëriñ Bamba war na guddeeg bëccëg budul ko nag maami Seex Muntaxa Mbàkke sunu dara du jekk kon ne leen jaajëf jaajëf Sëriñ Bamba war na ku ne guddeeg bëccëg budul ko nag maami Seex Muntaxa Mbàkke sunu dara du jekk gëm bëgg yaakaar Cheikh Bamba rekk lan ko fi def dunyaa wa uxra noo ngi fi moom tey mel ne dof dof dof luunu danoo dof Cheikh Bamba nu ko jaral kuy jaay te bëgg jaral jaayal waaja mu jaral bëgg Serigne Touba bëgg Serigne Touba bu dee dofit naw dof gunu neex bëgg Serigne Touba bu dee ndofit naw ndof gu nu neex bëgg sëriñ Tuuba bu dee ndofit naw ndof gu nu neex ku may xasit duma ci xuloo te man duma ci xeex te yàlla naa ci sax faw muy sab bu ñépp gis te bum wér mukk duniyaa wa uxra man naa ci des amina amin bi jaayi bamba ahmado mooy nangu ñaan moo yor mbooti haamilu ibrahima lo ibrahima al xalil xasiida moo fi dagoon yàgg ak wér ak sax ci lan fi dagaan ibrahima al xalil xasiida moo fi dagaan yàgg ak sax ci ndigal ami ngërëm lan fi dagal aaja yu faju biir ak bitti feeñ wa haajatu kulli muslimin soreeg jegeeñ subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ndeysaan